wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat man la suñu jéego yi tey itam daa bokk ci liggéey yi nga xam ne benn jiitu woo ci liggéeyu sëriñ bi te mooy liggéeyu Touba ci kanam li bàyyi Touba ci kanam moom tur yi yóbbaal na lépp. mu mel na itam day mbooloo moo xam ne ak liggéey boo xam ne daa yàgg yitteel sëñ Muntaxa laataa liggéey bi di egsi fii ci loxoom mu yàgg cee boole boppam ndax xam liggéey bi njëriñ lim am ci dëkk bi ak njëriñ lim am ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi mu gis it doxit yi ak ñi koy saaju seen yitte seen passeef ak seen xel mu rafet lu ñu def def ko ci nañ ko war ci nekk sëriñ abi bu jiitu ja kilifa yi ànd koog moom ak ñi yor Tuubaa ci kanam yëpp luñ ci sémb lu nekk gis nañ ne lu rafet la ndam rek ciy mujj loolu moo waral liggéey wuñ ci def ànd ko sëñ Mountakha fuñ ko ci woo mu wiis fuñ ci sàkkoo mu ñu ab tegu xeer mu ñëw tegu xero wa fuñ sàkkoo ci moom ab ak ñëw ubbi léemu yun mu def ni ko liggéey bi ñore la ba ba muy wax ne day joxe addiye joxe ale addiye fukki fukki taalibe sëñ Tuubaa yu ko yónni te mënuñu ko kon ren bu gisee ne liggéey bi Sëriñ Tuubaa lépp dafa dajaat ci loxoom mu ne kon day joxe waale juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent moom mat lu ko téeméer mu bëgg téeméer taalibe Sëriñ Tuubaa yoo xam ne amoon nañoo yéene liggéey Sëriñ Tuubaa ci biir Tuubaa ci kanam mënuñu ko mu yóbbaale leen ci xam njariñu liggéey bi na mu demee la ak yéene jëmu ci am kon loolu ak gën a sant yàlla rek la lu ñëwaat tey doon dox mbir moo xam ne ab jéego la bu am solo ci liggéey mooy Tuubaa ci kanam ku ne gis na ni mu demee ak ni muy doxee ni muy màggee ak wàccaay yi ñuy am ak liggéey yu bari yi nga xam ne am nañ ko te bokkuñ fu nekk ñu ngi fay am ay santé ca hôpitaux yi ca madrasa ba université ba ci faneen ci faneen kon Touba Ca Kanam dafa laaj mu am seize seize bu mag boo xam ne dañ fi def seen i bureau def seen i garage def atelier muy seen tummi tummikaay lañ fi seen tummikaay lañ fi def liggéey mun taxa waxoon ne ginnaaw moom liggéey bi liggéey bépp liggéey bi sëñ Touba barab bii ñu nekk tey mooy palais bii nga xam ne alaaj Ndiouga Kébé moo ko fi tàmbali woon lotise ko ngir liggéeyal sëriñ Touba ci dëkk bi ngir yàkkaleel sëriñ Touba àndoon ko kilifaam yu baaxee muy sëriñ Moustapha Bassirou ak sëriñ Abdou Lahat waaye bi mu fi jege tàmbali liggéey ba mu toll fii njabootam yii te sëriñ Moustapha Kébé mii teewal leen fi njabootu alaaj Ndiouga gépp ñoo dajewaat yëkkatiwaat lépp delloowaat ko sëriñ Touba delloowoon ko ci sëriñ Saliou mu jaar ci sëriñ Baar jaar bu ñëwaat ci loxoy sëñ Mountakha sëñ Mountakha wax ne Touba ci kanam buñ bëggee barab boo xam ne dañ fa teg seen i bagage dafa seen jumtukaay yi dafay liggéey dara gënu cee yàlla barab bii dara gënu cee rafet barab bii xam barabu sëñ Touba bu moomul boppam la ni sëñ Touba moomee barab bi ni la moomee Touba ci kanam kon kay day menn mbir ñu bokk borom bokk jëmuwaay kon war nañ leen a mën a boole bu baax a baax moo tax sëñ Mountakha ne naa woo sëñ Moustapha Kébé ñu tase feek jëwriñ yi sëriñ Abibu sëriñ Abdoulaye ñoom ñëpp ñu bokk taxaw ñu xool ba ne barab bii bu ñu ko joxee Touba ci kanam danañ fa mën seen cummikaay dañ fa mën def seen waay dafa daje dafa waaje buñ jógee buñ xëyee dem liggéey loolu nag juboo nañ ci barab biñ koy def fii ci kanam paleb alaaj njóge bii ubbee ci kaw tali jannatul maawaay bii danañ defar lépp delloo ko Touba ci ñu defar ko ba man lañ ci yéene woon def ñu def ko ci xanaan dimension bi juboo nañ ci trois mille 3000 mètres yi noonu bu ñu ñëwee nag ba di ko nat nooy xam lu muy tëddee mooy xam lu muy tëddee ba mu jekk ba ñu xam ne lii bu ñu ko joxee Touba Ca Kanam Touba Ca Kanam am na fi 3000 mètres loolu mooy li nga xam ne moom dañu may li mën a yóbbuloo tey xanaa di ñaan rek suñ sëñ Touba jàppal ci boppam ba ndam am ci lépp luñ def mu dëppoo ngërëmul sëriñ Touba lépp luñ def am ci ndam lépp luñ def amee ko nañ ko bëggee ñu ngi yëkkati ay kaddu ci ndigalul suñu kilifa gën a àndal di sëriñ bi moom sëriñ Fallou ak mboolem waa Touba Ca Kanam gépp di ko jëmale ci nuyoo bi sunu kilifa sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Mamadou Mountakha ginnaaw bu nu sant yàlla sunu borom mi nu boole sëriñ bi sant sëriñ Tuubaa di sant Cheikh muntu Mountakha bu baax a baax sant goo xam ne fi mu toll ci sunu xol aw làmmiñ mënu ko ndax jàpp gum jàpp Touba ci kanam ak jàppale gum jàppale waa Touba ci kanam ci liggéeyu sëriñ Touba bii. bokk ci jëf jóge ji mu def tey nag muy fii mu jox nga xam ne wax dëgg yàlla barab la boo ak pëstéefam ak seef ak bëggam hmm. euh, Touba kanam ak ak ak yitteel ju ko liggéeyu sëñ Touba yitteel mënoon nañoo jox fo neen foo ko gën a sori fuuf waaye fii mënu jox ko ne xam na ne bàyyi nu xel Touba ci kanam itteel na ko ndax barab la boo xam ne li mu fi mën na def bari na te teewut biñ ko waxee ne ko bëgg nañ foo xam ne ab siège lay doon foo xam ne dañ fa def suñuy jumtukaay defa fa suñuy bureau di fa liggéeyal sëñ dafa war a di wax ne nu ngeen ko bëgg nu ngeen ko bëgg rek mën na nee nekk ba daal di ñuy tànnal bii kon sant nañ ko bu baax te di ko ñaanal li sant sëñ Cheikh mi nga xam ne it moom la nu loon ca saa sa ci jataay ba moom la nu booleeloon ne ko na nga ci dox taxaw ci ànd ko ak ñoom bañ bañ am ko ni bañ amee ko niñ ko bëgg loola yi sëñ Cheikh def na ko ci moom it ñu ngi koy sant bu baax di sant sëñ Moussa Keye mi mu àndaloon muy moom El Hadj Ndiouga nga xam ne ñoom barab bi yàlla dogal na ni ko sëñ Cheikh wax seen way ko tàmbali woon ba fi jógee ñu def ko addi sëñ Tuubaa bu demaatee tey jii ba yàlla dogal mu nekkaa ci loxo Cheikh Mamadou Mountakha Touba ci kanam it itti woowaat Cheikh Mamadou Mountakha tànnalaat nu ko lool lépp tawfeex Sëriñ Touba la kon nag ñun waa Touba ci kanam daal Sëriñ Cheikh na nga xamal sëriñ bi ne ko sant nan ko santu donga nag moom amul solo waaye ñaan moom mën nan ko ñu ngi koy ñaanal suñ boobam yàggal ko fi lool te may ko ak wér te lépp lu mu yéenee liggéeyal Sëriñ Touba yàlla na ko defee na mu ko yéenee ten ànd ko moom te daje ci ngërëmu Sëriñ Touba mi muy liggéeyal ndax ak bëggam weesuwul ngërëmu kon sant nan ko bu baax di ko ñaanal sant yi yéen ñi nga xam ne yéen nañu boole liggéey bi di sant waa Touba ci kanam gépp te xam ne kon bisimilah sas waa ngi nii nañ daal di fas yéenee taxaw ba mu booy ak yeneen yi sas yéenu sëñ bi joxoon mel université bi ak sànce yi nekkoon yëpp ñu gën cee taxaw gën cee farlu ndax li ab soññee la wax doon ci noonu ndax sëñ Touba bàyyi nañu xel ndax moom mi fi nekk sëñ Touba bàyyi nañu xel kon ab soññee la wax doon ci ñu gën a yeesal suñu pastéef ak suñu taxawaay ci liggéey bi yàlla nañu suñ boobam mboole dimbali ba nan ko yéenee ñu defe ko te am ñu ngawum